génn rek téye drapeau géejawaay bi. poñe ne maa ko moom. waaw ah. <laughs> lan la la fan fan nga nekkoon boobu ba léegi. waaw ma ci sant yàlla bu baax. Mhm. di wax gëm-gëm mën na lu ne. Mhm. waaw mhm. man sama gëm-gëm ak sama jàmbaar moo ma indi fii. xale laa mais am naa vision. am naa fa ma teg sama bët. waaw 2012 laa judd. 2012 2012 laa judd 2024 bi laay am sama. 13 ans <laughs> sama taille nag 4 mètres 50. 2012. 2012 laa judd. yaa ngi ñaata at. am sama 13 ans. sama taille 4 mètres 50 la. sama loxo bi 3 mètres 95. biir bi ma judd 2012. sama lëngëru biir bi xóot 9 mètres ci suuf. Mhm. sama largeur biir bi 4 mètres quarante mhm. may lekk cere 11500. et eh, cinq bàyyi du ma la bàyyi. onze mille cinq cent ah, ah. meew fukki meew gën waa liibar suukar fukki dërëm mhm. moo tax ma ëpp mbëri doole di euh, ndékkee mayga mhm. spaghetti treize mille cinq cent mhm. pomme baxal onze mille pomme de onze mille douze omelette treize nenu baxal mayonnaise deux mille cinq cent ak ñaari biteelu ketchup biir <laughs> non non mais mais mais lii lay lii lay consommé. parce que biir bi onze waaw waaw bi sama lëngëru biir bi neuf mètres la xóot ci biir. mën nga largeur biir bi quatre mètres quarante. loolu xaj na ci waay. ma juddu 2012. namp neuf ans nag waxuma la neuf mois de. neuf ans laa namp. Mhm. waaw. moo tax ma ëpp mbëri doole sama complement alimentaire mayga laa gën a bëgg ci lu yàlla bind mayga ci consommer li may consommer mayga laa ci gën a bëgg mhm. su ma duggee mayga damay mel ni ku nekk màkk mhm. waaw Je Wa, waaw damay jënd onze de terre baxal onze de terre onze mille omelettes 13 nenu baxal mayonnaise deux mille cinq cent ketchup yu mag yi man ma koy suis du ci fait nit su fekkee hamburger moo de neex ma jënd hamburgers may boisson ah yenn saa ma ma waaxu ba ci dije Yves mu jàpp ci affaire yi yenn saa ma dem ci daam seen mu jàpp ci affaire yenn saa ma ñëw ci yow parce que àdduna noonu la dëgg la man li may wax dafa naturel quoi mm-hmm. parce que lii laay dundee moo tax ma ëpp mbëri doole mm-hmm. ma am sama gëm-gëm nag ak sama vision mm-hmm. ni dinaa fi dóor mbër mu dee ma jël sama peel bu mag beeg bu ndaw bi wàq ba mu xóot neuf mètres ci suuf ma woo le roi des arènes mhm. mu sama waaj mhm. mu julleel ma ko ba pare ma mhm. suul ko loolu sama gëm-gëm waaw yaa Oustaz <laughs> waaw loolu sama gëm-gëm la sama objectif la foofu nga jëm ak mbëri waaw foofu laa jëm ak mbëri di woo ñëpp sama sama combat bi incha allah novembre waaw la bisu combat Modou Lo ak Siteu waaw ngay bëri xanaa xanaa spécial bi yow la. waaw xam naa man lay doon. yow moom parce que parce a bëri. parce que la moo def waroon njëkk a man déggoo li ma la parce que maa ngi sant Modou bu baax. Mhm. ragal féete day xañ a wërsëg. Mhm. ndax euh, maanaam nit bu la mhm. defalee lu baax. da koy wax. damay pare sama combat bii paase. maag DMX. jël samay bee. vidéo ko dugal ko TikTok. Modou am grandeur u liir ko. maanaam xool vidéo bi. li jënd sama numéro envoyé ma un million. te ba ma koy envoyé deux cent moo nekkoon sam poos mhm. bi des une semaine mhm. bon volonté yaa ngi biir géejawaay moom mu dëkk parcelle mhm. rusuma jàppale ku mu rusuta jàppale rusuma ànd ak yow lii moo ma booleeg Modou Lo mu defaat lu rey woo waa jàmbaar ni leen bébé Elton fépp fu may bëreeti na ci bëre loolu lu baax ku ko mën di ko def rusuma ko wax mu lijjantil ma ci komba mu lijjantil ma komba bi maag Cheikh Niang ñu war cee bëre maag moom mm-hmm. yaa may dégg xam nga loolu dafa rafet acte rafet yooyu mu mu tourné fayal ma saal moom ñooy ànd di entraîné saal mm-hmm. man xamul nu lay def na ma la dafa tax dëgg la man ku ma rusuta jàppale rusuma ànd ak yow mm-hmm. fi ma dëkk géejawaay laa dëkk yaa may dégg ay bonne volonté nga fa maanaam kenn jàppalewu ma foofu nit du jóge ci àll bi ñëw jàppale ma te du ma far ak moom. mooy dëgg man kuy ku ma jàppale ma jàppale la. Alliance Baldé ñu ngi ko ci nuyuwaale. mu ngi waaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom suñu frère la yaa may dégg. lii moo ma booleek Modou Lo. Mhm. mu nekk nit ku baax nit ku am valeur. Mhm. nit koo xam nitu social la. Mhm. di jàppale gaa yëpp. nit bu la defalee lu baax da koy sant gërëm ko yaa ma dégg maa ngi nuyu waa école de Lune Ndiaga Sarr mhm. foofu nga nekk waaw foofu laa nekk ba ma fa ñëwee lu tax nga jógee waaw fële mhm. dem dem ci waaw waaw mais bëggoon xam mhm. fan tàmbalee ci sa ci sa fan nga tàmbalee waaw man euh, euh, parce que nii nga ma gisee ni DJ Yves man dama yàgg a xuslu jaay nekk naa ci marché lu yi jaay naa ay jaaro jaay naa goowe saaf ngir bañ ñu yem ma ku am dignité laa ku am ngor laa yorool milliard ma yor cent franc sama cent franc bi moom laa liggéey moom laa teg bët du ma teg bët kenn gëw ma kenn sama bopp laa gëm fi ma yegsi nii sama bopp gëm sama bopp moo fi yegsi waaw waaw parce que jamono ñu toll boo gëmul sa bopp doo avancé. Mhm. man loolu laa gëm. yaa ngi ñaata combat nii. waaw maa ngi huit combat laa am. ñaata victoire. quatre victoire mhm. trois défaite benn mhm. machine yi. waaw lii laa am bii mooy sama neuvième combat. bi nga jëm nii waaw. di ci woo àdduna ñëpp. pour ñu jàppale ma parce que combat bi mooy sama buntu àdduna buntu làmb. maa ngi ciy woo. waaw waaw maa ngi ciy woo ñëpp. pour ñu ñëw soutenir ma parce que man sama yaay mag la dafa am yaakaar ci man ma am ay rakk yu jigéen ak ay mag yu jigéen ñu yaakaar ci man kon yow yaay yow yaay góor waaw man waa no am naa mag bu góor ok waaw muy xaadim maa ngi ko nuyuwaale au passage mhm. mais man tey jii sama yaay euh, il temps ma defal ko dara bu mhm. fekkee ko waaw parce que maanaam tey jii sama yaay li ma lebal lépp mhm. bi ma nekkee xale lépp. dafa metti woon quoi. waaw kon gars yi nan ma jàppale. waaw waaw. te ñu yaakaar si man. ma yaakaar ci làmb. kon gars nan ma jàppale ma jàppale suma yaay. baaba waaw. wax rek. Euh, nañ ko jàppale mu jàppale yaayam. Mhm. xam nga tey euh, comme làmb bi ak showbiz bi yëpp dafa metti mhm. te gars yi nañ ci war a ñëw jàpp. Mm. parce que war a dundee kopp bu la yàlla joxee pan de la séddale. ndeysaan mm. ndeysaan ñi ñi nañuy nañuy nañuy nañuy ñëw di dimbali quoi en fait. parce que yéen ni ngeen di préparer combat. Mm. dafa metti sooy waaj combat liñ la jox lépp boo xoolee sax. Mm-hmm. ci nga koy ci nga ci nga koy defaat. ci nga koy def mais tey li ma bëgg a xam mooy lan mooy euh, secret Elton. Mm-hmm. ba bu ñëwee. Euh, euh, day neex nit ñi quoi lépp loo def day neex nit ñi parce que tey. bu ñu gisee ki nga xam ne nii moom mooy ki fi ñëwoon buusita. Mhm. moom dafa ñëw indi comédie bi mais yow sa sa fël da ko xaw a écarté tuuti quoi léegi fu mu nekk nii mun naa ni sénégalais yëpp. Mhm. ci yow la ñuy concentré wu lan mooy sa sa secret ba booy dugg ci làmb gi supporters yëpp dañuy jóg. waa loolu wàcce sa bopp. doon Baye Fall. loolu buusita def ba nga fay ko nag. non man déggoo li ma laa dama ne. Mhm. li tax ma yegg si fii mooy dama wàcce sama bopp doon Baay Faal yaa ma dégg euh, maanaam tey jii awma ma concurrence ak kenn déedéet man li ma de li may def dafa naturel ci ah, man naturel ci yow parce que man avant may bëre fecckat laa woon moo tax ma dégg ok fan nga doon ah, laa doon àndal waaw groupe chat waaw laa doon àndal ñoom Galaay Assane Faye ñoom laa doon àndal. moo tax dégg nekk ci man yëpp mooy loolu. parce que mbër dafa war a mën a fecc. Mhm. saf xorom. Mhm. bëri bayre mhm. macha allah. te wàcce sa bopp. parce que boo làmb dafa laaj yooyu yëpp. waaw bul gis kenn ba doye dal ko wala nga gis kenn ba xeeb ko parce que yow yaa soxla nit. waaw ñun danoo soxla nit ñi. li nuy may nit ñi mooy. li lii tax nit ñi duñu topp mooy ñu wàcce suñu bopp mhm. waa jël sama jikko ànd ceeg daam seen jël mhm. sama jikko ànd ceeg DJ Yves mhm. mooy tax koo gis nga mën a nekk ak moom parce que maanaam bokkuñu fu ñu juddoo bokkuñu fu ñu yaroo waaw kon tey jii pour ñu ànd rek bu ma jëlul sama jikko ànd ceeg du ma mën a ànd ak waaw parce que maanaam tey jii yàlla dafa bind te yemalewul ku nekk nag am nga idole am nga gis-gis am nga vision waaw mooy lool yaa may dégg kon tey jii xama waaw gars yi na nañuy jàppale nit ñi bu baax waaw te yàlla tax loolu dafa am solo nañuy jàppale nit ñi mhm. man daal maa ngi sant ba bu baax mhm. doomu père ba mhm. parce que ak waa jàmbaar ñëpp parce que mënuloo mënoon na ko wax tëggalal bébé Elton mu teg ci baat mais daf ma dañu ma cinq avance laa lay jox waaw tëgg sama combat ak Cheikh Niang. Mhm. Issa Pouye pare na pour bëri ak man. ok mi ngi ci bientôt léegi. Issa waaw pare na pour bëri ak man. Mhm. waaw moom it dama ko fekk Tiwaan Pël. Mhm. macha allah mu ne ma yow ñëpp la bëgg. ñëpp la bëgg suñu kër sax ñëpp la bëgg. yow amoo droit def erreur. parce que làmb ji léegi grand contre petit moo fi am. man am naa cofeel pour bëri yow dinaa la may chance. mu nekk grand bu baax. parce que wax sa mbaax waaye wàññiwul sa mbaax dara parce que ñooñu ay icône lan ci làmb mhm. ku bëre euh, ay champion yu mag bu la mayee sens kon loolu sant yàlla la mhm. kon man daal maa ngi nii di gën a dénkaat sam bopp sénégalais yi mhm. waaw di leen wax àdduna da ngay wàcce sa bopp boo bëggee nit ñi topp la da ngay wàcce sa bopp d'accord man noo ñëwee rek noonu laay ànd ak yow di jëyee Bébé Elton. waaw Bébé Elton ndaanaan la de mais Yves nag Bébé Elton temps yi xajatul géejawaay de. xajatu fa déedéet. xajatul géejawaay parce que Bébé Elton gars yëpp dañ ne est-ce que est que waa parcelle jënduñu ko. bu doon recruter recruter mbër day am. waaw en moment waa parcelle dañ ko débauché quoi waaw parce que instant bi Bébé lu mu wax. Mhm. Modou loo lay wax. Mhm. te xam nga ne jamono jii ñu toll moom. Mhm. dégg nga déclaration bi Balla Gaye def fan dëgg la ci Modou Lo waaw ñoom ak ñoom ak waa Parcelles nii lañ def mhm. ba ba tax na tolluwaay bi man li ma koy laaj mooy mhm. pourquoi sax bëru géejawaay bu buy bëree mhm. Bébé Elton day ñëw bëgg a ci tuus bi mais dañuy ñëw di ko isoler di ko génne tuus bi waaw ci mbër géejawaay gis nañ lu mel noonu. ok combat contre contre contre contre kan la woon kii waay nu mu tuddati. Maguette Seck Maguette Seck Boy Niang la woon. Mm-hmm. ak euh, Mbagnick Kaïré. Mm-hmm. gis naa ko mu ñëw ci tuus bi di mm-hmm. participer. mais dañoo ñëw publiquement. génnoo ko ci tuus bi écarté ko écarté ko. mu doon affaire boo xam ne ñi gis image bi keroog. rafetlu wuñ ko parce que Bébé Elton tamit di ñaan mbaam gàtt na mais ci jur gi la bokk. dëgg la Bébé Elton géejawaay la dëkk. parce que bi mu jógee Balla gay 2 dem Ndiaga Sarr mhm. bu ko neexoon bu jógee Balla gay 2 mhm. mu dem parcelle wala feneen ak feneen mhm. mais mais mais lan mooy problème bi dëgg-dëgg est-ce que mun nañu ci ñëwal ba tax na ñoom saa yoo leen jege ñu mel ne lu la boddi wala lu la isolé lan la awma problème ak kenn fàllu ok man dama jaar fu metti gëm sama bopp gëm-gëm moo ma exil fii mhm. concurrence kenn mhm. dama am vision ci làmb mhm. am fu ma teg sama bët man sama champion bopp laa gëw ma champion kenn sama champion bopp laa yaa may dégg sama roi des arènes bopp laa xanaa du maa gëm sama bopp mais loolu yàggul de bi nga dama ne non déglu ma gis nga doomu aadama loo nekk te gëmoo ko da nga ciy sonn mais doo ci jariñu te dama cee bëgg a teral sama waajur te làmb pour nga am ci dara faw nga am gëm-gëm am euh, décision bind sama mag bind sama ginnaaw jamaa foofu yaa may dégg xooluma ci nit am naa droit nag ni fii laa bëgg a dem su ma bëggee dem fii du ma maanaam du ma gestu man dama am vision ci làmb dama war a tekki teral sama waajur ci làmb parce que ñiy tekki ci làmb gënuñu ma mais problème nga am ak champion yi nekk géejawaay parce que bu ñu nee champion rek Balla Gaye la di xalaat. te am na benn sortie boo def yàggul dara di wax lu mel noonu te yow xam nga ne <coughs> làmb dafa fiir diggante Modou Lo Balla Gaye jeex foofu moom jàmm dina am ni entre ñoom ñaar. mais biir làmb jàmm mënu fa am. parce que Balla Gaye lu mu am moom bëriwaat ak Modou Lo nii nii nii. moo ko gënal moo ko gënal. waaw même bu fekkee daan na tafaatin. mais la mooy problème biir géejawaay. en tout cas. parce que am na ay mbër yu ko daan wax ci suuf. li ma ci li ma ci mën a wax. mooy mais mais d'après Bébé Elton Bébé Elton xam nga xam nga pour dire vrai Bébé Elton. Mm. instant bi géej waaye foo tourné xam nga lu ñuy wax exemple. Mm. non seytaane la. Mm. xam nga. bokkul fii nangam nangam. mais moo boobu. moo boobu lan nga jàpp ne moo tax ñu koy génne chaque jour di ko teg sa kaw. non loolu ñu koy wax. loolu ñoom la concerné. ok yaa may dégg. ku siiw siiw nag du jàmmi borom te aussi maanaam tey jii pour nga def ba sénégalais yi bëgg la yombul de dëgg la man sénégalais yëpp ma bëgg mhm. ndax sama xol bu rafet sama mhm. wàcce sama bopp mhm. ku ma gis def la ni sama bopp yaa ngi may dégg du ma may kenn tur nag yaa may dégg baax mais tey mais tey waaw non non avant loolu yow ak Balla Gaye yow ak Balla Gaye ngeen benn relation bi avant ngay ngay dem ci Ndiaga Sarr yéen ñaar man daal doon demlante di jëflante. li ma la ci mën a wax mooy. Hmm. école waaye dafa yaatu. ok mais école de lin Njaga Saar. Hmm. benn tey sama benn kilifa gu mag moo ma woo. Hmm. daan na ma yow ñëpp la bëgg. waroo sax def erreur wala ngay erreur de communication. mais waaw mais foofu laa nekkoon. lan moo la fa jëlee. mais man maa fa yóbbu woon sam bopp. dem naa ba gisatuma fa sam bopp. am naa droit dem fa may gisee sama bopp. mais lu tax gisatoo fa. waaw non dé déglul dama la écurie Ndiaga laa nekk. maa ngi nuyu waa écurie Ndiaga Sarr ñëpp. di nuyu coach su El Hadj coach su Mbiis coach su ak baay Fall ñi fa nekk ñëpp maa leen di sant bu baax di leen gërëm. Mhm. foofu laa woon mën a wax sama waa écurie. mais xam nga avant ngay dem géejewaay géejewaay. mais Bebeto daa daa am lu muy xam nga xam nga avant ngay dem. lépp loo gis guddi gi nii. waaw dañu bëgg bu fi affaire yi jeexee. waaw après yu bëri rek lew. mu leer parce que yow mënoo dëkk géejewaay nga nekk doomu géejewaay. Mhm. bëgg am problème biir géejewaay am ñu la fay moytu. parce que ëppalewuñ la géejewaay. Mhm. waaw donc moo tax tey bu ñu bëggee euh, defaraat tey yenn diggante yi fii lañ ko mën a jaaree yenn kilifa yi. Mhm. ñoom Pape Mama ña nga fa ñoom Moussa Fall bu saa Thiès ña nga fa. Liiru Jaan Liiru Jaan ma nga fa. Mhm. mais gis nañ fi problème mu euh, fils de Balla la woon. waaw ak Balla Gaye de Balla Gaye. waaw réglé nañ ko benn benn fan. ñoo mhm. toog ñoom ñaar xam ne ku def mhm. mën nga mën nga nekk xaritu Modou loo du la tere nga bokk biir Géejawaay. man Géejawaay laa dëkk foofu laa am titre foncé. comme ñoom nin fa amee titre foncé noonu laa fa amee titre foncé. yaa ngi may dégg bu baax. waaw waaw man nag kenn du ma wutal ku may àndal. ok. yalla momay bolé nit ma and ak mom kon sa and ak mourlo moy nit non man deglul dama la dama ni if mhm. man gejeway la dekk fofu la am titre foncé ñom ñu am fa titre foncé mhm. bi may dugg ci lamb taguma len mhm. ñom bi ni dugg ci lamb taguwun ma ya may deg kon nangu dafa jël ci ru bañ bu yalla ne waw ñepp nañu waw ya may deg li ne ci man ni li tax sénégalais yépp bëgg ma peut-être looloo tax am mbër ñoo xam si neexu leen mais fa yàllay defaree yàq xaju fa man géejawaay laa dëkk daw ma ci dara. yaa may dégg mais mais mais ko déggee dafa mel ne dafa am benn jalousie. am na lu mu lu lu lu ko metti waaw lu ko metti quoi loo xam ne mënu ko wax carrément. géejawaay tey lan ma gën a bëgg man. Mm-hmm. mais sa diggante ak parce que parce que man man ñëpp laa seexal jàmm géejawaay. ñëpp laa seexal jàmm. mais bi ngay bi ngay jógee ci école du Balla xam nga école de lutte ku fay dugg di nga fekk champion ba fa nekk. bien ngeen waxtaan mais ba fay jugee est-ce que waxtaan ngeen. non école de lutte Balla foofu laa nekkoon. maa fa yóbbu woon sama bopp. du kenn moo fa yóbbu. lan moo la ba nga maa toog ba parce que foofu dafa bëri woon ay mbër. Mhm. su ma fa toogee mën naa bañ a génn. ok loolu moo ma génne ecole de lutte Balla Gaye benn problème kon aw ma fa benn problème maa toogoon ba gis fa sam bopp ñëw fa mhm. dem naa ba gisatuma fa sam bopp mhm. am naa droit dem xool fa may gisee sam bopp da ngay yéexam combat daal boo fa nekkee non bëri dañoo bëri non foofu pour maanaam jamono bu ma fay ne mhm. dafa bëri woon ay mbër pour nga génn fa problème la moo tax man ni xaaral ma dem beneen écurie pour ma gaaw a fël ok dimbali sama waajur loolu moo ma tax a jóg aw ma temps bu may perte fenn. écurie Ndiaga Sarr kan moo fay tête de file bi. foofu amul tête de file non maanaam parce que dañuy xàccandoo dóorandoo. man maa fa ne njaga doole. ci mbër yu mag ak càndum de mhm. ak euh, waaw mbër yu mag yi nekk foofu. Mhm. ñun danoo booloo doon benn xàccandoo mhm. dóorandoo. suñu écurie amul tête de file ñun ñoo bokk ndey ak baay ku ci am combat. ñëpp lay jàppale sot sot la bi. waaw. boo amee ndam ñu ànd ak yow ñu kontaan soo amee safaan ñu encouragé la suñu équipe loolu moo fa am. d'accord maa ngi ñaanal waa. équipe Ndiaga Sarr mais balaa muy dem moom ci communication mm-hmm. ci communication am damay faral di dégg. Mm-hmm. mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne bàyyiwul fi kenn dem na sax ba rambasaale ci waa Géejawaay. tey ah, ku jël avance bi mu bëree ak yow. non loolu nekkul biir Géejawaay. Géejawaay la nekk mais moom dem na ba ba bëgg a jëlal moom ay adversaire am ci ñu nekk Géejawaay. Fallou kay problème. Fallou waaw. man déggoo li ma la man concurrence ma kenn. mais lu tax nga yàlla moo ubbi xolu jaam yàlla moo ubbi xolu jaam ñu dugal ma ci. mënu ma ci dara. Mhm. yaa may dégg. mu neex leen dañ may bëgg mu naqari leen dañ may bëgg. parce que man fayu kenn pour mu supporter ma. Mhm. neew ma kenn mu ñëw supporter ma déedéet. Mhm. ñoom ñoo dem ba xam ne bébé Elton moo gën ci ñoom. ñu mu may supporter. yaa may dégg. te ay kilifa yu mag ñoo ma encadré. am ci man cofeel ñoo ne ma carrément booy waxati léegi parce que ñëpp la bëgg yamal ci sa écrit nga wax ci sa écrit mais loolu mooy yoon parce que man xama nit ku ne sa champion bu ma da nga am ay adversaire yoo xam ne tey bu la joxoon ñooñu da ngay bëri déggoo li ma la dama ni man géejawaay laa dëkk waaw yaa may dégg sama écrit laa mën a wax mënu waa wax beneen écrit parce que man sama écrit moo ma concerné foofu laa nekk foofu laay plaider. ok yaa may dégg. waaw école de Ly Ndiaga laa mën a wax ci biir Géejawaay. mais léegi Géejawaay Géejawaay dafa am lu la posé. waaw tey bu fekkee ne beneen mbër nekk na beneen école de lutte wala écurie. waaw. bu la laajee di nga ko bë di nga bëri ak moom. parce que ci biir ay communication day wax loolu de. maanaam parce que parce que Maguette Seck dafa amoon combat. Hmm. man dama sama sorti bii passé. Hmm. Ah. dama am combat Maguette Seck donte mi ngi ci combat. Hmm. mu ñëw. soutenir ma ci komba bi jàppale ma. Mhm. mu conseil ma li may bëri ma bëri daan waaj. Mhm. kon moom bu amee bis. war naa mën a ñëw taxaw donte nekk ma ci équipe bi. ma daal di ñëw tout sax yëkkatiw ma. Mhm. ma ñëw taxaw am ñoo xam ni si li bébé ni bébé Elton mel. da leen a yaa may dégg. waaw man duma tudd turu kenn. ni bébé Elton mel. ak popularité bi mu am. Mm-hmm. ak ñu ko bëgg loolu daf leen a déranger. Mm-hmm. ñu xëcc sama saak ñu ma ñëwal ci ginnaaw tuus bi. Mm-hmm. ma ñëw taxaw nee ci territoire bi. man maa ëpp populari popularité ñëpp. su ma taxawee fii. sid yëpp man la ñuy dem taxaw ma ñëw wàcc toog ci tànk yi. ñu ne ma lan mooy sa problème ak diw. man leen teraanga laa ji fu ma ko gis jox ko sama mille francs wala sama 2000. kon kooku teraanga ji. ku nara nar nak humilier nag ma humilier la. Hmm. mais sequma kenn lu dul jàmm. d' accord waaw tax. loy looy ci bir waxu Bébé bebel ton Elton. Yves Bébé Elton mi ngi wax lu am solo. li am solo li mooy biir géejawaay. Hmm. nit mënu ko fa genn nak nit ëppalewu ko fa. titre foncier la fa am. nga hmm. àdduna dafa garaaw. te am na ñoo xamni manam bu ñu nekké ci gox. gox ba dañ leen war a téye dañ leen war a fonk. te it muy nit koo xam ni. géejawaay kese moomu ñu ko léegi. Mm-hmm. ndax lii la doon ñaan yàlla. dem ba àdduna di ko bëggee. Mm-hmm. waa géejawaay it war na ñoo xam ni. Mm-hmm. kii seen doom la. ñu jàppale ko. parce que tamit xam nga am na àdduna loo xam ne boo ko seetloo da nga koy gis. te tamit nit ku doon champion. war a dem. tey ku ci nekk ngay xamanteel. ndax ñëppay ñëw. te bébé Elton fi mu ne nii yaatu na. fi mu ne njaaxaan rek lay tëddee. Ah. ñu dëkk Parcelles ak ñu dëkk Thiès ak. ñu dëkk Pikine nag ñëppay bëgg bébé Elton moom mënut a ñàkk parce que ku ci nekk tey da nga ko xool bu doon yow la. tey champion boo boo nekkee jaww dañ naan Balla Gaye. Balla Gaye am na ñu dëkk Pikine ñu bëgg Balla Gaye. ñu bëgg Balla Gaye. Ah. te pourtant Pikine am na ay champion. Mm-hmm. parcelle am nay champion. mais ñoom Balla Gaye lañ bëgg. kon kii war ñu ko a fenn. Mm. dañ ko war a bàyyi mu firi. Mm. géejawaay nag tey bu fa nekkee. Mm. tant que ko posé benn question ni ko ndax bu la joxoon mbëru géejawaay. nga bëreeg moom ndax di nga bëreeg moom. noo xam ne bépp a def loolu. ah mais moo ci ay communication moom. moo loolu moom est-ce que xol bi kiiwul woon. waaw boobu dafa tàng. waaw boobu dafa tàng mais hmm. kii boo ko xoolee xam ni géejuwaay la bëgg. Hmm. te ba pare maanaam nit mën na nekk ci beneen écurie. Hmm. defal la terrain comme ni ko Modou Lo defee. kon kii amul lu dul sekk ak Modou Lo jàmm. waa waa waaye nag. foog ñu réfléchir xam ni Modou ñëwul. ci euh, bébé Elton mii. pour bébé Elton jaay ko waa Géejawaay. Mhm. non non non. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. kon nag foog ñu xam loolu te affaire bi bu fekkee fair play la ñuy woote rek. warul am ay xiiro ak ay ŋaayoo daal. comme dañ ne sport moom fair play la. bu dee dëgg nag laa wax. xam nga nit ñi léeg-léeg toog naan fair play fair play. fair play te gëmuñu ko fekk xol xol yee dul fair play. jëm la jëmm yi mën nañoo fair play mais xol yi duñu fair play. te du noonu. tey kii am na droit dem sax fa mu dëkk. di entraîné foofu. loolu mhm. dara nekkul ci mais mais mais mais daam daam daam. Modou Lo man daf maa bëgg. daam dafa parce parce que Modou Lo nekkul n'importe qui moo koy. Euh, fréquenté. Mhm. moom daf maa bëgg te yàlla rek tax. Mhm. bi mu gisee action boobu. daf ni ma eh, ba mu ni ma mu ni ma waa géej waay buñ la naree sonal ñëwal sama écrit eh. ma ni ko eh ba mu ni ma ma ni ko non non dama dama dëgg yàllaa ko moom mais bi ma bi ma waxee loolu xamala laa ko wax aw ma problème fi ma nekk école de leen jagasaar maa ngi am jàmm yaa may dégg mhm. lii laa ko wax aw ma problème foofu mhm. mais parce que gis na nit may def ndax moom te gis bëgg yàlla moo koy def mais mais mais yàlla moo ñu boole mu ji ma teraanga mhm. ma wax ko waruñ seen xol warul bon ci loolu parce que léegi bébé Elton partout dans le monde ñëpp koy bëgg. kon yow bi. waaw waaw li ma li ma dem ci Modou Lo moo leen neexul. te man kenn du ma wutal ki may àndal. parce que dafa metti woon la taxaw na mais DJ Yves combat Modou Lo mu wax ci lu rafet ba waaw waaw déggoo li ma la dama man dama dama bébé Elton dafa daje ak ci tefes gi. ñoom ñaar ñu daje bébé Elton sinap daana Modou Lo yooyu yaa fi ne. waaw am naa droit ah, lool bàyyi <laughs> eh, dama lay wax dama ne Eh, hee kon war wax loolu. man dama ne Fallou man fu ma ah. far. ñëppay xam ne fii laa mënuloo daan ñaari yoon mu mën a nekkee. bàyyi mbër loolu ñoom ñaar la. waaw mais bébé waru waru si nag mais mënuloo. yaay bàyyi mbër Fallou eh, Fallou on se dit la vérité. non dama ne non déglu daam. Ah, mais mais mais mais nag eh, dama ne waxuma loolu dama ne. baaba waaw dama ne déglul ma wax la. ak Balla Gaye Modou Lo ni ñu mel. dama ni nun mën a mel loolu ñoom la concerné. comme comme man concerné wu ma xamal lan moo ma ah, concerné. comme Modou Lo moo xajoo bébé Elton. mais mais kaa ñu man man de. mais Modou xaaral dama mais mais mais xam nga prince prince Modou Anta lay bëreel. munoo jóge Thiès ñëw ba ginnaaw raay. non loolu moom yor Sénégal ba mu Sénégal prince. non non prince yaay loolu moom la waaw waaw waaw Bewelton bàyyi jàmbur bi ngay indi ay <laughs> problème. non xaaral rek xaaral. damay wax ak Modou Lo la xel mi dal ci bébé Elton. kenn bañu ko Balla Gaye xelam war naa dal ci bébé Elton. waaw xel ñaar di hmm. kii. géej waay la jógee waaw mais bébé Elton li mu wax wax lu solo. waaw Modou Lo comme amul ñaar. que ni hmm. mii day géej waay dëkk. xaaral ma ko. waaw kon ñoom war ñoo moytu bébé Elton ndax kii doomu géej waay la. Hmm. xaar dafa nànk rek. waaw parce que kii fa la juddoo. fa la la yoroo ba tey nii mu toll. waaw ko kon jàmm ju mu yéenewul ñee du ko du ko mën a xëcc sànni ko fee. waaw dama lay wax rek. waaw affaire làmb la. Mm-hmm. yow yaa ngi wax wax joo xam ni. mën ngaa indi beneen problème. mais mais mais daam. daam wuyu ma daam xam nga wax wax yaa ngi yaa ngi wax xam wax wax bal la. <laughs> daam xam nga ne wax bal la. day juum. bu génnee kenn mënatu ko téye. nit day juum. isa xam ne Ama Baldé Ama Baldé. mais yaram wax bi Bébé Elton wax nii. Mhm. Ama Baldé waxoon na ko Pikine. mais waxoon na Balla Gaye mooy bàyyi mbëri. waaw waa Pikine nañ ko mere ci loolu. mais en tout cas loolu te moom ma li ma la mën a wax mooy. mais moom xamal la laa bëgg mu juum. ma la mhm. mënta lekk morom te ñorul. waaw déglu bu baax ma wax la. yow rek laay déglu. damaa sant Modou Lo. Mhm. booy géejewaay ñëpp di ci contesté. Mm-hmm. Lac de génn prison. sant Modou Lo sant Modou ma ne alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. fii laa sant Modou Lo ñëpp naan ma daa da daa cof beru. Mm-hmm. ndax teraanga ji ma Modou Lo defal. man leen ba may liggéey un million. boobu xaw ma Modou damaa fees della ngor ak dignité. fu ma un million fekk foofu la may bàyyi. yaa may dégg mais am na geste yoo may def dama lay téye. man kenn du ma wutal ku àndal maay xool ku ma neex ma ni kii laa bëgg te ku ma bëgg ku ma àndal di réew mi ñëpp dina xam ne fii laa far ragalu ma fii fii ma féete mais kii wax na la boppam ko léegi léegi bébé man man loo bay jàmm moom loo mooy sama idole mi ma loo xaritam la eh, yow Fallou Fallou dama ragal féete day xañe wërsëg moom loo mooy sama idole mooy sama référence. mais Yves Bébé Elton damay ragal waa Géej waay est fii xaar ñu fii. waaye eh ñëw fii. ah Yves xam kenn mën na maa tere. waa Géej waay ñun dama ni lu mu guddi guddi. Géej waay laay fanaan Yves xam nga man aw ma di waay li lu mu guddi guddi Pikine laay fanaan. mais lu mu guddi guddi. Géej waay la ñibbi man a yow kay ñuy ànd. xamal la moo ma gën a neex ci Géej waay gi ma gi ma dëkk. dama ci feer ndax ba may commencé daam seen matoon na ma set xanaa ndawoon na waaw kenn gëmu ma woon. Mm-hmm. ma gëm sama bopp di rayante nekk école de lutte Balla Gaye mm-hmm. yaa may dégg bu baax ñu naan dof la comédien la. Mm-hmm. ma gëm li ma gëm bindi zaman fu sama ginnaaw mhm. ba tey yàlla dogal lii réew mi ñëpp bëgg ma du ma du ma du ma kii du ma du ma du ma dama du ma xoof du ma daw d'accord man damaa gëm sama bopp ku ma nangulul li ma yàlla may nit ñi nan ubbi seen xol mi xajal ci bébé Elton sa kër goo dugg biir <laughs> géejawaay dama ni dama ni kër goo dugg biir géejawaay su ma paa bi bëggul maire bi bëgg na ma wala ay doomam loolu yàllaa ko def force la nangu leen li yàlla dogal mais nan nangu li yàlla dogal daam daam léegi léegi baaba yow léegi il faut ma sama yaay ajaratu nday nga yor sécurité nee ko mu ñëw mu gaaw sonn naa damaa bëgg tabaxal sama yaay kër dugal ko ci lii laa bëgg réew mi jàppale ma ci nga dar ko dama ni yor sécurité bi dama ni DJ Yves di ko gunge nee ko mu gaaw barki sëñ Tuubaa damaa sonn damaa bëgg a teral sama waajur ci làmb laa ko yaakaar macha allah mhm. waaw ma toll naa ni ma war a toll dama dama am ci làmb ji te dinaa ko jël par waaw par force VIP yi maa ngi seen biir man maa am sama objectif dinaa fi dóor mbër mu dee. ah waaye ba mu xool woo Modou sama idole. mu jullee ko yaa oustaz jullee ko ba pare ma suul lool laa gëm. xale bi léegi léegi léegi léegi roi des arènes. ak empereur bi. léegi kan kan kan moo ci man no dama ni. man waxuma kan moo ci mën dama ni. Yves li nga ma laaj question bi nga ma laaj dafa sensible mais daal en tout cas li ma mën li ma mën a tontu ci question boobu li ma mën a tontu ci question boobu mooy. en tout cas daal roi des arènes. Uh-huh. kuy bëre moom ngay ñaan yàlla. Uh-huh. ah man de man bébé Elton moom laay ñaan yàlla. Uh-huh. moom empereur. dama ni man roi des arènes laay ñaan yàlla xanaa am naa ci droit. bëggoon nekk empereur non déggoo li ma la dama ni DJ Yves. roi des arènes moom la CNG validé moom laa bëgg a doon parce que manga ko njëkk a nekk. dëgg la euh, jaar ci gi ni ba ci ainsi de suite ba ci Modou mais man loolu laa bëgg nekk. waa ak Balla Gaye mm-hmm. mais man moom laa bëgg nekk waaw mooy bi gën a wóor roi des arènes bi moom la ñëpp validé àdduna boo yeewoon guma silmaxa boo ko yeewoon mm-hmm. mu xippi ni la roi des arènes laa bëgg mais looloo fi baba ñu ñëw ci daam seen yaa ngi wax sànq am ngay bal yoo ko dencaloon waaw bal yi ma dencal daam xam naa yaa ah. waa ba ji ba pire ah. gi jaxase jaxasekat bu mag a ngi kii day tas kër day que tas diggante tas Sénégal parce que ñu tuddee la Fallou nga bëgg a jaxase géejo bébé Elton ak géejo. <laughs> ah ko nangu. <laughs> ak seen ak.